ajaratu <laughs> jërëjëf tey nag daañu waxtaanee euh, Idrissa Seck mm, mi ñu tuddee nitu Thiès. <laughs> ah gars yi <laughs> gars yi ko wax de mais tey suba nag alaaj dafa ma wax lu lu dafa wax kàddu yu ma neex mooy que ni waa Thiès ay nitu bañkat lañ du ñëpp ñoom ñoo yor genre comme niñ koy waxee rek ñi nga xamante ne nii euh, amuñu. ngor ngeen baal ma si kàddu yi mais nag tey dañuy waxtaanee di Seck bi nga xamante ne nii samedi bi ñu génn muy le 25 doon na def séminaire. Mm-hmm. Euh, doon ci ànd ak nag ñi nga xamante ne nii ñoo bokk ci partem boobu di réew mi euh, mais nag wax na làkk na fay olof yoo xamante ne nii borom xel yi sori yi rek ñoom ñoo ko mën a comprendre muy muy. nee na Messi doo ko gis mukk ci terrain bi muy paraj paraj kenn xamul Messi doo ko gis mukk ci terrain muy paraj paraj wax la nag xaw ma nag fan la fan fan fan la jëmale wax jooju. Ah. voilà candidat candidat ou pas nag wax dëgg yàlla waxam ji euh, ba tey ajaratu euh, dafa fulu dafa dafa des parce que ba léegi nii sénégalais yi xamuñu fan la jëm exactement mais yëkkati na daal ay kàddu yoo xamante ne nii euh, bi mu waxee rek gars yi dañu comprendre parce que bi président Macky Sall demee Thiès la fois passée muy tournée yooyu muy def tournée économique yi. am na wax bu mu ko fa waxoon indirectement nag la ko waxee mhm. mais nag euh, voilà mu ngi noonu yu bëree bëree bëri am na yenn nag sénégalais yu nga xamante ne nii euh, réaction def nañ ay réaction yoo xamante ne nii jëmale nañ ko ci moom nañu dem seetaan ko daal del si li ma gis mooy euh, s'il dit que principe yi mu jàppoon quand il était avec Abdoulaye Wade pour euh, refuser le troisième mandat s'il est encore sur ces principes-là ça c'est compréhensible et c'est normal Donc euh, c'est de la conscience. Et il a le droit, euh, en tant que leader de parti, de postuler à une, sa, à une candidature. D'accord, mais... Ah, je, ne sais pas. De façon, moi, il a des éléments que je n'ai pas. S'il a décidé à moment donné d'aller s'allier avec euh, Macky Sall, am na tax moom xam na ko. Les gens peuvent être d'accord ou non. Mais chacun ku nekk xam nga ne tey sa bopp jënax. Donc s'il a décidé en un moment donné d'y aller, il a ses raisons. là aussi on ne sait pas li ko li ko yóbboon xamuñu ko li koy génne xamuñu ko de façon ce sont des choix personnels il n'a qu'à les assumer. mais am yaakaar ci moom que ma kenn <laughs> ki gañe ak ku dul gañe ma xaw ma ko. xamoo si dara chacun a ses chances. fu mu gën a bon météo politique moom ayuma ci. je sais que man le moment venu j'irai voter et j'ai fait un choix en fonction des de mes convictions mais vraiment je ne sais pas qui va gagner ou mën nañu abaar rek ñun moom Sonko lañu la ñu kii moom ah mais dafa reposé nag dafa reposé idi moom lañ ko bàyyi ci mburoog soow mi moom kële moom moom moom mën nañu abaar rek Sonko moom mën mën na posé wu moom te dafa te dafa moom moo fi nekk instant yi ñun moom la ñu am ci moom la ñu am yaakaar waaw non Idrissa Seck moom baax na baax na dem la na dem ne jërëjëf jërëjëf soxna waaw xam nga moom boo ne Idrissa Seck rek gars yi wax mburoog soow waaw te xam nga moom am na loo xam ne waxoon na ko donc bu del si waatee di wax waxu candidature ni nañu jaaxal waaw Idrissa Seck moom dafa war a jàpp ne euh, milieu politique da ci pare non non non jërël mu sax na dem jëlaat alxuraan boobu muy tàmm di tari ak ji firi mun nafaraat ko bu baax ah waaw dafa am wàll si réew mi mais boo amee wàllu si réew mi am na lu la réew mi wan yow si li la réew mi wan loolu ngay jàngat. waaw mais dafa am tournure bu bees bu am dafa am vague bu bees bu bees bu ñëw nit ñi dañuy évoluer nit ñi dañuy avancer ña daan politique bërki démb ak ñi daan politique démb ak ñiy politique tey nit ñi dañoo am choix xale yi dañuy màgg dafa am changement donc loolu il faut ñu jouer si ñi ko daan topp wala ñi ko daan nangam sangam ñooñu tax nañu leneen léegi ndaw yi ñoo jug ndaw yi ñoo def seen choix. donc ndaw yi bu ñu defee seen choix ànd ak mag ñi nga xam ne ñoo ñoo desee il faudra un changement Aïcha mi ngi noonu Omar mu mel ni <laughs> gars yi euh, seen wax ji daal nduru na ni daal Idriss daal moom moom mooy loolu quoi mën na jël retraite mhm. ci seen i kàddu. am mhm. na dafa am euh, bu ma juumul diboka mhm. wala euh, kii waay du mu tuddati Moussa Faye am na ku ko ci waxoon daal. mu ne am na fu politique di toll si Abdourahim Agne Abdourahim Agne la appartient au monde du crépuscule. Mm-hmm. maanaam bu doon ni euh, ci guddi lañ jëm ñi ngi si timis Idrissa Seck nag dafa bokk ci ñooñu. Mm-hmm. waaw jàpp naa ni moom train bi dafay bàyyi waaw pour être honnête parce que Idrissa Seck sànq da nga wax ci sa biir kàddu ne ne Idrissa Seck day flou Idrissa lépp lu mës a def dafa flou pour man. Mm-hmm. dara mësul leer. Idrissa Seck ba mu dalee politique ba léegi imagine lu mu dugg rek mu leer. loo xam ne lu leer la. day dugg fii ñu naan fii léegi nag loolu lépp li ko indi mooy nit la koo xam ne bi muy doog a jukk nekk xale ñu amoon yaakaar ci moom la léegi na ñaar a ko mën a dal ci àddina ma dama ko jàpp mooy cat da ko jàpp wala mu catu boppam te catu boppam laa gën a gëm parce que dafa woon idi président pour man boobu ca la ko cat dugg mm-hmm. ba tey jii ci politique Idriss Seck mënatul egg fa mu jëm Idriss Seck jamono ju ñu ko taalee ba ñëpp ne tàkk na rek moom mooy fayat boppam. ndax Idriss Seck bi mu jugee ci deux mille dix-neuf da ngay xool ni ñu bëri yaakaaroon ni budul lu Macky moom la. mais ñu teg ci quelque temps mu dem fekki kii di président Macky Sall kon Idrissa Seck tey jii bu bëggee jugaat wax leneen Sénégalais yi maanaam du doon Sénégalais yi dañuy téye ci waxi sa Seck te Idrissa Seck tey bu génnoon tey di politique ban appareil lay àndal parce que dama gëm ni parti réew mi tey jii bu doon ni ab garab euh, ñu ne reen yi dee na ko reen yi dee na bu reen yi dee xob yi lax na maanaam amatul parti bu dee appareil benn bokk yaakaar appareil boobu gëw ma ni ñoom ñëpp dinañ bàyyi seen lépp di jël di ko liggéeyal Idrissa Seck parce que même bu dul Macky Sall ana waa PS ak AFP yi ànd ak Macky depuis 2012 ba tey ji ñoom dinañ togg seen togg ba mu ñor ñu koy yekkal Idrissa Seck. Mm-hmm. fan la leen Idi demal ak fan la leen Idi féete Idi daa am lu ko rey ci politique pour man Idi daa am lu mu diggoon Macky Sall. suñu borom jamono weddi ko. di nga mm-hmm. Macky Sall bi Idi njëkkee ñëw. fekki ko après deux mille dix neuf Macky dafa ne boo boo ma doon natt tey ci politique quatre vingt cinq pour cent du Sénégal mën la des sénégalais mën la ñu àndal Macky Sall loolu la waxoon. mais bi ñu demee ba élection ñëw parce que élection ci la dégg di feeñee idi Thiès dafa jàppoon ni mun na ko indil président makisal mais Thiès gi mu jëloon sax ni bu bu ànd ak Macky dina ko jox seetloo Macky mi ngi tàmbalee tam euh, ñàkk Thiès ak Idrissa sekk ci bi Idrissa Seck fekkee ak Macky. Mm. maanaam ba mu àndeek ak Macky tey jii amul benn njariñ boo xam ne Idrissa Seck amal na ko Macky bu ko wàññiwul bu ko yokk ko maanaam day wàññi kii di président Macky Sall loolu tax Idriss Seck tey jii ci wàllu politique pour man dafa am benn mébri bu Abdoulaye Wade amoon. dafa mm. échec te Idi firnde la ci. mooy ñun libéraux yi dinañ fi def cinquante ans. mais boobu dafa wax na ko sax si si si si si. na ko korok. Mm-hmm. mais tey jii jeu boobu yëpp bu ñu koy def ñoo jaam ak pexem yàllam ak dogalam ñoom seen pexe la woon. Mm-hmm. mais yàlla dafa dogal nii nakatee dina am kenn ko feeñ mooy un phénomène di Ousmane Sonko. Mm-hmm. maanaam bépp jeu bu ñu tegoon ñoom ci politique. tegin Ousmane Sonko bi mu feeñee da koy yàq. Mhm. lépp loo xam ne naaloon nañ ko di ay pexe bi Ousmane Sonko feeñee da koy yàq loolu nag mooy seen yéene amoon nañ ko mais li yàlla bëggoon namm ko ci ñoom ci keneen la ko namm. Mhm. léegi nag tey jii ku mel man ci position boobu la taxawee. Mhm. man dama jàppoon ni sax bu ñëwee toog day wax day jël retraite politique mais tey jii génn bi mu génn ñaar Idriss Seck waxul lu leer kañ la mos wax la leer ci àddina. ba ngeen xamee Idriss Seck ba tey jii. <laughs> tey jii pour man avenir Sénégal bu ñu ko doon defar dañ koy defar ak ñ ba mu des Idriss Thiès. dafay bàyyi Idriss Seck dafay fàtte Idriss Seck na yaa ngi wax sax affaire élection que ni yi jàll yëpp même bureau mi sax booy seetlu lu bari dañ ko fay dañ ko fay gagné sa bureau de vote nag ku ko mënta gagné moom daanaka rek day doon problème. su fekkee <laughs> euh, Idriss Seck sa mbokk de. waaw sama mbokk la loolu moom duma ko bañ ndax euh, ay ay jarbaatam hmm. maa ñoom seen sama papa seen papa bokk ndey ak baay hmm. donc sama mbokk la. Euh, muy mbokk boo xam ne xëy na xamante mel mook sama papa xamante nañ bu baax donc muy koo xam ni euh, xëy na dafay dafa muus ba ëpp ba mu ëpp xam nga li ma wax ba mu ëpp mooy euh, nit ki nga di ko chaque jour ak fi mu fi muy fël moom idi kenn du xam waxam ndax day cof xam nee na Messi kenn ko gis ci terrain bi. muy nee na ndaanaan la. Mm. xam nga ndaanaan kenn du la gagné ci sa biir bureau de vote. Mm. Euh, mu jël nag ay xale yoo xam ne Thiès kaay la nekk am na koo xam sax sama ni sama nijaay la ci. mooy ki mu doon wax ndax kooku neen dafa àndoon ak Bougane Gueye muy Mouride Ndiaye kooku sama nijaay la. Mm-hmm. nee na bi mu jëlee murit Mouride daal di ñëw daal di gagné fi nga xam moo di bureau de vote am muy Iba Katiba. Mm-hmm. donc nee na après Mouride daal di bàyyi foofu nee ñëw ci moom. Mm-hmm. kon looloo ko may li nga xam ne moom moo di deuxième bi nga xam ne moom la gagné ci élection yi mujj yi. très bien ci la gagné loolu. donc ñu koy wax ni ko comme li paa bi wax am na benn paa boo xam ne dafa wax ni que ay xale yi danoo màgg. Mm-hmm. Idi moom moo mun Cees base Thiès déedéet base bu njëkk ba ah. idi moo ko moom moom nga may da boo moo ko moomoon idi bu musaana ñëw même lu mu campagne campagne même bu campagne bu ñëwee day battre bi mhm. léegi pa bi wax ni euh, affaire bi dafa changé dafa changé mhm. xale yi léegi danoo muus danoo jël seen place bopp pour xool nan la ñuy defee mhm. donc te fi mu ne nii fii ñu toll nii man de bi ma ko gisee barki démb pour muy wax ma di ko déglu damaa defoon noonu dafay ñëw pour nikk moom dootul nekk li nga xam ne rek bi wala azim dama ni pour man sax mënatul wax parce kenn déggatu ko euh, pour man parce que kenn déggatu ko parce que génnatul woon génnatul woon nekkatul woon kenn xamul ci li mu nekk donc ñu ngi doon wax naan Idrissa Seck fan la nekk fan la ne fan la nekk fekk mi ngi toog di defar boppam kenn keneen dafa bëgg a ñëw ci président xale yi màgg nan te bëgg nan changement te wax dëgg yàlla na xool nan lay defaat mm-hmm. Mm-hmm. d'accord macha allah alaaji waaw xam nga Idrissa Seck de euh, dama ko yërëm ah. waaw xam naa ni <laughs> danaa jël waxu yi xam Idriss Seck bi mu dee booy xam naa booy booy xam ne bi booy rek la maati pooxoox <laughs> Cheikh booy ku bëgg xoox la quoi <laughs> bi mu ko waxee damaa ree bëgg a xam naa ñu bëgg tippoo xoox yooyu la mais Idi euh, dafa juum ci li su wax sànq ne Idriss Seck dafa muus bu mu ëpp boo yeggee ci ëpp rek mooy nekkatu maanaam nit yaa nga ca leneen maanaam booy perdre nga les pétales xam nga Idrissa Seck bi mu jëlee exemple ci Messi laa ne oh là là idi li idi idi idi li li mi waxoon ñëw na idi bi mu ne bi mu mi ne idi dafa gëj liggéey <laughs> foofu laa ñëw idi dafa fàtte ni ñun coach la mais tànn nu ñu joueur moom nag joueur la def boppam comme que jour la nag assemblée la waroon a dem waaye <laughs> waaye waaye waaye war ca kii quoi parce que jour la nag waaw fi ñu jëm ma ne moom jour ma ne jour la jour la quoi maanaam <laughs> mais ñun coach la ñuy tànn parce que euh, xam nga présidentiel coach la maanaam ki ñuy tànn jox ko réew mi mi ngi mel ni entraîneur bi ñuy jël jox ko équipe équipe bi entraîneur bi après moom mooy tànn ay joueurs mhm. yu muy liggéeyal léegi nag moom comme que dafa considéré boppam ci joueurs yi léegi nañ ñu xam ne Idy léegi joueur la moom léegi moom moo yóbbu boppam second plan man jàpp naa ni kon bu warta bokkati ci ñuy xëccoo parce que moom génne na boppam ci ñuy xëccoo ci ñi nga xamante ne bi après mën na nekk poste directeur wala mu yor poste su ministre wala mu nekk kii et cetera mais bu amee 63 ans sax lay dem suñu yoon ci loolu bu ko neexee na politique du am dara nit ñi bari banañ ci moom voilà léegi nag leneen li nga xam ne moom la ñuy wax Euh, jël Idriss Seck naa nitu Thiès moom laa doon wax tey ma ne ko mm. Thiès ay nit ñu am valeur ñoo fa dëkk parce que man damay fàttaliku euh, élection Abdoulaye Wade Abdou Diouf 2000 dafa am sama benn copain boo xamante ne bi li ma dox lu waa Thiès wax parce que boobu jeune yi dañ ne su fekkente ni bi sàcc nañ élection yi Thiès la ñuy doxee ba dakaar parce que laa Wade ku daan gagné tamit fieefu Thiès la comprendre ah comprendre nga gis détermination boobu nga xamante ni bi fa la jógee te tamit boo xoolee taarixu Thiès da ngay gis ni ay nit yoo xamante ni bi ay nit ñu am valeur am kii ñoo fa ne donc moo tax Idi pour mu récupérer waat Thiès pour man munut la ne ay gént la nekk quoi moom mi ngi rêvé quoi fi mu toll nii fi mu toll nii bu fekkee ne benn waaye laa mës a gis ku càmbar iddi mu ne Idi ndaw lu tayal la topp ci mag yaakaar ni li mag mi yor dina wat mu for yaa ngi dégg te du ko ko jox Ablaye Wade joxu ko mbir mi échec bi mu échec moom échec bi mu échec moom idi mi ngi échec fële comprendre mi ngi échec fële bi nga échec ci Ablaye ah, ah? fa la échecgee fa la échecgee foofu la échecgee parce que ki nga xamante ni kii mooy Macky Sall président Macky Sall patience ak constant ci benn mbir moo ko may tey lii mu am idi nag da fee nekk topp li su kaa doon wax naan muus bu mu ëpp di mbong mbonglu ba far réer ci ay mbogam xamatul ban tànk lay taxawee donc na xam ni moom jamono bu wéy na <laughs> li Omar wax léegi ci jibakam doon ko wax jamonoom wéy na ci politiciens yi démb yi la waaye bu yu tey moom bokkutu ci en benn paa mu ngi ma koy wax sànq naa ma comme aaye yi la nekkoon di firi na delluwaat ci loolu rek te bàyyi politique bi <laughs> kànji da koo réew bi bëgg a dee mu yoo xam ne daal en euh, sax li ma bëggoon a wax sax moom la daanelee gis nga it Idy depuis dugg a génn ak visite nocturne nam yooyu mu doon def boo seetloo biir Sénégal ñu bari ci lañ ko bàyyee ci lañ ko weddee je sais pas mi ngi def tout nag pour rebondir en tout man dégg naa ko ci ay biir waxam nee na musul laaj waa Thiès luñ ko joxul jox nañ ko deux mandats maire jox nañ ko deux mandats président euh, conseil départemental donc muy loo xamante ni aussi euh, bu dee aussi bëgg na ko man xam naa ni liggéey liggéey bu metti la te loolu dootul yomb pour euh, gars yi amaat ci moom confiance. dina dina doy waar daal dina compliqué trop ci côté surtout surtout surtout ñun waa Thiès ñun cees dañ dëkk xam nañ la fa xew. idi moom cees moom. yóbboo mu génne ci xelam dafa dóor sax waa Touba gis booy Touba yi niñ meree idi. billaay billaay Thiès. booy Touba yi niñ meree idi. Mm. ak fañ ko tegoon. billaay daawuñu sax xalaat comme diw dañuy wax def nii doonuñu ko ko woon def daay ko woon def si ay mbiram moom da ko fa def ah, te Ablaye nee na ko li ma la waxoon nga def ko fa sax defoo euh, lay defee foofu lay voté dañ ko fay gagné souvent chaque jour ñu gagné ko fi mu toll nii mënatu ko gagné dem. moom dafa war a ba. Ah. moom dafa war a respecté naa ne yaakaar ah. na ba léegi man yaakaar bi mu gën a tas ci politique. Macky Sall la ah. yaakaar ni mu jox ko maanaam. ko yaakaaru Macky la. pour man bu dee nit ko am na ku déception ci Idi. waaw Macky Sall la. Mm-hmm. parce que Macky Sall bi muy pousse xëcc Idi. Mm-hmm. xaarit woon lii benn dafa am conséquence yu bari. mooy dafa maanaam amoon Idi comme opposant ci kanamu Macky mm-hmm. moo gënoon ci Macky. mais dem bi mu dem moo tax Sonko gën a révélé wu ci kanamu Macky. moo ko tey moom la mu waroon jariñ Macky jariñu ko. jariñu ko la bi ko makinee nii ne ko après dama lay jox xoox. du am xel la ku am xel la macha allah wala paa bi loolu la wax nee na nee na nee na am na paa boo xam saa fop saa boo bi mu xoolee ay erreur u Idi tegu ci tànkam moo ko gën a naan non Macky ma wax la leen gis nga sukaa réew mi yëpp bu ñu jàppee ni ku muus nga mutoo nax kenn wallaay azim loolu lay problème mu Idi Macky nag nit ñëpp dañoo defee woon ni muusut mu ñëw nag dox ci kaw gaa yi. Eh, noonu la paa bi sànq. noonu ko waxee mu ne muusam bu ëpp. moo ko indi lii yëpp na dem dellu ca aaye yam doon firee. muus yooyu doonu tut muus jéem a ne eh, yow boo làqatoo fii. di kaay wax la ñun ñëpp bu ñu ñëwoon di làqatu. <laughs> yaa man ma taxaw nii kee taxaw ne ñun ñu ne fànn kii yaa ngi dégg yow nga làqatu fële. mais ñun ñëpp xam nañ ni fee nga làqatu. amul sens. mais làkk dootul. waaw béti <laughs> euh, <laughs> euh, looloo ko dal nga xam ni béti euh, nit koo xam day bàyyi xel ni bala ngaa xam loolu rek nga toog ak moom daf lay bàyyi xel te xam nga nit bu toogee yow di waxtaan ak yow nii bul bàyyi xel ki nit ki ba mu ëpp ndax boo nee nit ki dama koy bàyyi xel ak lan la bëgg. non noonu non comme déedéet muus ba mu ëpp la béti. muus ba mu ëpp mooy ni que euh, di nit ki di ngay nga toog ni di xool rek may may xaar yow sa wax ba wax boo waxee man la li tax lii li tax lii la tax lii loolu du noonu nit du muus ba mu ëpp bu mu boo muusee ba mu ëpp rek da lay indi problème. Ah, mm, waaw waaw waaw loolu moom dañ ko koy reconnaître. parce que moom nii c'est un homme d'état nag. homme d'état dina génne ay CD. li mu yëg mois moo fi doon génne ay CD. Mm-hmm. waaw kooku secret d'état dana ko téye. Mm-hmm. li huit mois da nga ko faat ba mu fi wax la Ablaye Wade mm-hmm. loolu homme d'état dana ko def am na ñoo xam ni am na ñoo xam ni faatuwaale leen maanaam may ma homme d'état lan kooku bu leen Bruno Bruno yow bu dem bërki démb nga ñëw ko kii quand même ci luñ koy nangu man de gisu ko mënoo ko war a nangul. tax nañu tax nañu xas ñu naan nitu kees nii la mel. wallaay su ma nekkoon fi nga xam ne ku xam ne loolu Abdou Diouf ba tey kenn dégg ko ci détail te kenn musu ko génn gis mu jóge fii dem fii.